asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk dellu nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 minam dëkk ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci candidat yi nga xam ne ñoo am yéene ci Sénégal ne 2024 danoo bëgg a jiite réew mi ci ay góor ak i jigéen ñooñu nag toll nañ ci seen lim 2019 ñu ngi tolloon ci 126 2023 bi jëm 24 list bi mi ngi toll ci 206 206 nag mooy ñaari téeméeri nit yoo xam ne danoo bëgg a jiite senegal ci góor ak jigéen ak ñaari téeméer ak juróom benn lan wax ne amagun nañ ko mbokk yi balaa boobu ñu fàttali ne euh, Birima Mangara dafa bëgg doon candidat ci la bokk Ablaye Sylla ci bëgg a doon candidat ci la bokk Mimi Touré ci la bokk Boun Dionne ci ñi bëgg a doon candidat ci la bokk Aliou Nguy Ndiaye ñi bëgg a doon candidat ci la bëgg a bokk kon mbokk yi tey ñu dikk rek def benn jàngat ci lii <coughs> Euh, balaa boobet am na tuuti lu moo bëgg a leeral ñi nga xam ne ñooy déglu Tanime yi ak di ko seetaan bu jiitoo cant gi nga xam ne maa ngi leen koy cant ak di leen ko ñaanal xawma ma tàmbaleem fan la yem xaw may tamit fan la tàmbalee waaye xaw ma fan la yem ci aw yiw ak lépp luy tax ñu mën a seetaan Tanime TV ak leneen luy tax seen dund yéwén ci àdduna ak àllaaxira maa ngi leen koy ñaanal waaye nag leneen li nga xam ne dinaa ko ciy gis commentaire yi ñi lay woo wala ñenn di la wax seetaanoo commentaire yi tontu woo ma ci loolu moo wax di yàlla ñu baal ma aw ma jot gi mënumaa wax ba noppi di dégluwaat nit ñi commentaire mi ko commentaire yi dama leen ko cërale jox leen ko addi jox leen ko kado yéen a xam dangeen ngeen a ak man ci li may wax wala yéen a xam d'accordu leen wala yéen a xam soof naa leen wala yéen a xam xañ na ak mbëggeel am ci lu ci amën a am rek delluwaat na ci yéen lu ci mën a am nag awma ci dara lu ma ciy déranger lu ma ciy déranger awma ko lenn daal laa xam lu ma ciy déranger mooy ma ñàkk wax dëgg loolu dina ma déranger xañ na suñ ma koo dellu si beneen bi ci des mooy li may wax ma ñàkk cee xam dara di ci telli telli di wax loolu xañ na dina ma déranger moom ku ma ci kii waaye lu dul lool rek lu waaye mën a wax rek jëlal jox naa la ko àddiya sedd na ci yow lool lew na ci yow moo xam aw tagg la moo xam xas la lu mu ci mën a doon rek jëlal jox naa la ko àddee <sighs> li ma bëgg a waxtaan ci yi nag lii moom mësuñu koo dégg ci benn réew na am na ci benn réew boo xamante ni lu ma ñaari téeméeri candidat ñi ngi bëgg a jiite dëgg la nag ay yéene lan am waaye li ko waral nag am na ci ñaar yoo xamante ni jàpp naa ne moo waral candidat yi bari benn bi tamit mooy foye gi ni foye réew mi ak jàpp ne réew mi dafa mel ni réew la moo xamante nii daal ñenn ñi dañ cee war di dund ñenn ñi di ci tedd ji ñenn ñi dañ cee war di tedd ñenn ñi duñ ci tedd ñenn ñi mu leen di teral ñenn ñi mu leen di tëral. am réew nag bu àggee foofu te réew ci la ñuy organiser li ñuy dundee fii ci àdduna waaye ci la ñuy organiser pour sunu àllaaxira baax ku sa àdduna jagul rek boo rafetee njort boo boo defee analyse sax di nga xam ne sa àdduna mën naa bañ a rafet mën naa bañ a neex ndax àdduna li fiy njëkk mooy jàmm mooy njëkk pour nga mën a jaamu yàlla jàmm mooy njëkk pour nga mën a dund jàmm mooy njëkk pour nga mën a doon nit koo xamante ni sa vision sori na. lii nag li ko waral dafa am lenn lu fi am loo xamante ni mës am ci senegal mooy ki nga xam ne mooy nekkoon président bi di organiser élection bokku ci. loolu tax na ku nekk wadd tëb ne man damay jiite réew mi bi ko gën a ñaaree la li tamit mooy ki nga xam ne moo jiitu ci opposition bi ñu tëj ko kaso ba noppi ne ko doo dem élection ndax ba jonni tey dañuy jàpp ne Ousmane songo du dem ndax fi mu toll lii candidat yi bare bu fekkoon ne nee naan Macky Sall day dem Ousmane songo day dem candidat yi di déposé duñ déposé kon ñii di déposé na ragal yàlla ñii di déposé nan xool li nga xam ne lu yàlla la bu nu xool seen intérêt bopp rek tax ñuy déposé candidat wala seen intérêt jabar wala seen doom wala benn xaj bu nu gaaree ci seen kii wala ak yooyu nanu ragal yàlla xam ne am réew caaxaan yoru ko responsabilité bu rëy la <coughs> beneen bi ci desaati tamit jàpp ne liy waral candidat yu bari yi mooy li nga xam ne taman ma taxaw ci Ousmane song mi ñëpp lan jox pa seeni fiise moom joxunu ko loolu it di nga dégg ci ni réew mi daal organisation bi doy na waar bi ñi ko doon déposé candidat demee bi ñu demee ne ko ne leen bu usmaan Sonko lañuy ñuy jël ñu ne leen Ousmane Sonko amu fi dañ koo génne ci fiise euh, fiise bi dañ koo génne ci liste bi ñu ne leen fan ngeen ko bind ñu ne ah ñun de amuñu fenn jox leen fu ngeen ko bind ñu ne déet ñunu dafa am ay ndigal yu jóge ci kaw ñii fi nekk jàpp naa ne ay ndigal leen fi war a bàyyi wala li nekk ci këyit yi wala dara nañ leen ko jox fan yi récité kii war naa bokk ak wërta bokk ñëpp borom xam-xam yëpp nee na du fii ñu leen teel a baare nii ah, loolu lu lu xaw a kiimaane la kandidaa yi tamit gis naa ne li tax ñoom it ñuy kii am na ci ñoo xamante ni dan ne ñoom réew mi fi ñu toll ginnaaw président Macky sàll moom demul Ousmane Sonko moom ñu ngi jort ne du dem te loolu man wax dëgg yàlla ci xalaatkat yi nga xam ne jàpp naa ne bu Ousmane Sonko bokkee ci élection yi loolu moom daf mooy li may bett waaye Ousmane Sonko bokkut ci élection yi moom du ma bett ci sama xalaat ndax ba mu dalee wax ne def déclaration de ne day def doon candidat deux mille vingt quatre ba léegi lu gisaguma tànk buy wane ne bu nu ñi war a organiser yi ne tànk bi dina tax Ousmane Sonko bu luy tax Ousmane Sonko du bokk rek laay gis ñuy def suba ngoon bëccëg beneen bi ci desaat nii nu organiser kuy bokk ci élection loolu woyof na lool nanu ko dellu siwaat lii du xam-xam lii ñu ñiin organiser ne ku bëgg a bokk ci élection yii mooy tax boo ko remplir mën ngaa bokk ci élection wala mën ngaa doon président woyof na lool <coughs> benn bi mooy na nga am parrainage bi ci lu toll ci quarante nangam mille wala lu mat nangami député nan la nan la parrainage quatorze quatorze député sa li ngay def constitution mooy na nga am trente millions yaakaar naa loolu la ak yeneen ak yeneen yi ñuy laaj dafa woyof lii ku jàng am na ko am ku jàngul mën na ko am koo xam bu sumee dàllam fii bu noppee jaawale dàll yi mën na ko am ki nga xam ne prénance yi kooku mën na koo am bu ko jëndee mën ko am ki am xaalis mën naa am loolu ki nga xam ne danga ko ne nu mu tuddati Euh, lii tax nga mën a jàll am nga xaalis boo fay am nga ñu la defal parrainage am nga ñoo xamante ni ñoo la mën a defal parrainage ñi la mën a defal parrainage yooyu boo ko amee mën ngaa jàll waaye yii ndax tege na ci xam-xam ndax lii ñuy laaj tege na ci ak njub ndax lii ñuy laaj ndax tax na nit ki war a mën a jiit Sénégal ndax xam-xam am na ci jàpp naa ne waroon nañ cee boole bale ko nit a doon président dinañ xool biographie ndax moom ku jublu wala ku jubut ndax ku compétence la ci njàng wala amul njàng ndax ku am yar la wala ko amul yar lan la mas a def ci dégâts fan la mas sa jaar fan la mas a nàngam ak nàngam mais yooyu yëpp duñ ci xool dara dañ lay wax ne la daal yow na nga fexe ba am parrainage bi na nga fexe tamit ba nu mu tuddati na nga am euh, li nga xam ne moo di constitution bi li nga war a joxe ci xaalis waaye duñ xool sa njub fan la toll duñ xool sa baax fan la toll duñ xool sa compétence duñ xool ci ban lan nga def taxasus duñ xool sax yow wér nga wala wéroo ass bi ñu waxee tamit na ass bi faaw nga passé trente cinq ak nangam wala quarante nangam yooyu yëpp nit mën na koo passé mën naa jàll ci ñu wutal ko mu àgg passé quarante cinq am quarante cinq ans am lu mu fay ci caution bi ndax loolu yooyu yooyu rek mën naa ndax lii rek te naa tax nit mën a war a jiite réew mi nit ki yore woon ab entreprise ku mel ni Anta Babacar Ndiaye nee na entreprise bokkul Serigne Mbuub mi nga xam ne ab maire la yoroon xëy xëy na cal ne léegi day day bëgg yor réew mi ah keneen nga gis ko fële koo xamante ni da daan tëgg di misik ñu xëy xëy gis ko ne day yore kii koo xamante ni ci internet bi la nekkoon di saaga ñu xëy xëy gis ko ne nangam lii Ousmane Sonko wax ban candidat moo ko mën a wax liggéey naa 15 ans. kenn mësumaa gis ku ma mës a ameel ab dërëm ne ñu wax ko ndax loolu war woon a bokk ci kii bi ki niy jox sunu kees di ko jox kees noir jox ko sàndarma jox ko policier jox ko nangam ndax yi jikko waru cee am jikkoy xam ak euh, jub ak euh, ak kóolute yonent yàlla yuusufa bi ñu koy dénk bi muy laaj ñu koy dénk lan la waxoon dane man xam naa jub naa te mën naa mbir mi ndax ñoom ñii di wax ñoom ñëpp ànd nañ ci wane ne mën na mbir mi ab député sax bala nu ko waroon a fal di ko def ndomba tànk di ko def député dafa war a am ay compétence yu nekk ci moom koo xamante ni ku gën a ñaaw Coura Macky ban ban ci ban kii lan nu mën a wax ne ni Coura ci ban maanaam ban compétence lan wax lan nu mën a wax ne Coura lii moo ko dugal assemblée bu bokkut compétence su saaga ak xasse ak wax nàngam réew mi buñ ko fooyee nan ko teg ci ay loxo yu leer ñii di ko laaj am na ci ñoo xamante ni li nu bëgg mooy protéger seen alal kuy ñëw wala liñ ci jublu mooy ku dikkaat bàyyi leen xel sedd leen dara juma jëng jaxate mi am na élection yu mu bokkoon yu mu bokkoon euh, gañewul deful dara ku ne xam na ne mënu gañëwul benn bi ca desaat waaye teewut loola am na lum ko jural jural na ko ñu bàyyi ko xel ba fi mu toll juma jëng jaxate ab ambassade la nit ñi daal dañoo bëgg ñoom ñii ñëpp bu noppee ku nekk ñu compal la wala ñu ne gâteau bi lan nga ci am ñun ñu def lan ñun fal fali tamit bu leen di fal ñu ngi leen di ci condition lan sama tëli ba fële <laughs> boo foolee tëli bi nangami at ñi ngi koy wax ca nguur ak Senghor lan ko waxoon nguur ak Abdoulaye Wade kii kii leen suma xolo dinaa ko defal kii ne leen ñun ab forage mënunoo fexe ba am ko yooyu rek mooy tax daal ñu ngi taxaw di am tuuti rek loo xam ne daal sénégalais yi ba léegi war na noo xool daal li ñuy def jëf joo xam ne dalay topp topp sa njaboot gi ñëwaat mel ni toppam siti lii nag lii ñuy wax lii ñu tudd toppam siti du topp waaye lii nu bëgg a def fal ñu yeyowut a fal jox ko ñu yeyowut mbir mi wala ñu ko mënut loolu mooy toppam siti dina nu topp ñun ñii ba topp ba ci sunuy sët yi ñëwaat lii dana leen topp dana répété wu ci ñoom te gis ngeen ne boobu ba léegi lu mel noonu la nit ñi sunu maam yi doon dindi ñoo ko fi suuxatoon ñu ngi nii bëgg koo dindi mu tëj tëj ndax li ko waral mooy ñan mooy businessman yi chef religieux ñan ñi ñenn ñi yooyu politicien lan ñu yore réew réew mi demul dikku ngi taxaw fii sax di ñaan yàlla maynu nu wérug yaram ak wérug diine yaatal sunu wërsëg may nu mujj gu rafet salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tanim TV.